ki yor cër ak i dogal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul ma kooku may Ababakar ki cër ak dogal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul ma kooku may Ababakar mi kenn tëggalewul ki mu doon ma kooku may Ababakar mi kenn kenn dëkkaalewul ki mu doon kooku mooy Ababacar mbër mi kenn dëkkaalewul ki mu doon kooku mooy Ababacar xalifa man bay na samawaat ki mu doon kooku mooy Ababacar xalifa man bay na al arde ki mu doon kooku mooy Ababacar dondu Mawda doon di Cheikh soga dem kooku mooy Ababacar jëflante ba tey ma kooku mooy Aba Bakar Si ca barzaq tey jëflante ba tey ma kooku mooy Aba Bakar Si ca barzaq tey jëflante ba tey ma kooku mooy Aba Bakar Si yër cër ak ci dogal ak ci zenzen ci diine wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa baat bi sonn na nag waaye tabaarakallaahu lu may sonn sonn monsieur le maire ma gën a sonn di bég bu baax ci waa dëkk bi xaw ma lu ma leen lebal waaye lu ma leen lebaloon waaye fay nañ ma ko tey ndax euh, jàpp naa ne lépp lu ma xewle njaarim géppay ñëw waxuma sax man waaye waa kër maam Thierno Kandji lépp lu ci waay xewle waa njaarim gépp nga ci gis buñ ne waa njaarim nag kenn jiitiwu ci monsieur le maire dañu koy ñaanal bu baax sonn na te it euh, xam naa ne wérut te it mënuñoo gàntal mënuñoo neenal ndax xam nañ cofeel bi mu am ci ñun te toujours bu jur da koy wane di ko wax di ko fësal ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla guddal sa fan yàlla dolli sa sutura yàlla dolli sa xéewal ah tabaarakallaahu di eh, élection yaa ngi ñëw comme ni mu koy ñaanee rek képp koo xam ne njaaree ma gën ci yow yàlla na yàlla jox la ko ñun si ñoo ngi ñaan yàlla bu mu génn ci loxoom ndax it jigu eh, jigédiwut njaareem ci li ñu gis ndax it bi mu dugg bi lo mairie bi duggee ci loxoom la njaareem soppeeku yenn soppeeku yi kon nag yàlla na ko yàlla fay di waxit keneen ku mu dugg ci loxoom it na nga yéem a dox comme ni muy doxalee ndax moom mii du tànqam lu daray kenn lañ koy yërëm sax léeg day feeñ ci kanamam ci coonoom ci ci ci ci bëri yitte ci nit ñi waaye nag la ma la waxoon rek laa lay waxat da nga fi yàgg danga nga wér alxuraan a ko wax yàlla nee na ku amal nit ñi njëriñ danaa fexe ba nga yàgg fi wa amma man yanfau naas fa yamkus fil ard kon nag ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla guddal sa fan suñu festival bii samay soppe di def nga xam ne ñoom ñoo ko organisé fii lay toogandug ñun ba fajar wallahi la adib ku ñëw mu mu dalal la kuy ñibbi mu gunge la fii la toog ba fajar gis nga bis bi nii tey xew-xew yu bari nañ waaye tey tabaarakallah moo ñëw toog nii ba ba bis bi di waaj a jeex mu mu ànd délégation bu bu mag bi ñi nga xam ne samay baay lañ samay soppe lañ it waaye samay soppee baay lañ ndax nit ki boo soppee baayam da nga sopp doomam xëy na ni may doxalee nekk ci sama wetu baay moo tax ñu bëgg ma di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal seen fan di ñaanal xalifa bi suñu baay sëriñ Habib Kandji yàlla na yàlla guddal fanam di nuy suñu baay suñu sëriñ Papa Thierno Kandji baay daara baay bu baax la baay bu lewet baay boo xamante ni bëgg njaboot taxawu njaboot muy sagu diine yi di sagu islaam di sagu tariqa bi di sagu dëkk bi muy koo xamante ni lu mu la wax ci dëkk bi takku ko téere yal na yàlla guddal fanam di leen gërëm yéen it euh, tabaarakallaahu yéen ñi nga xam ne yéenay média bi teew fii IETV mu ngi fi Thierno suñu xarit tabaarakallaahu waa waa Diourbel 7 TV Gora tabaarakallaahu ak mbo Baol Times ñoom ñëpp teew nañ ci tabaarakallaahu Baol News ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ak mboolem autorité yi nga xam ne teew nañ ci jotaa bi ak sama mbokki sëriñ si ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñiñ ko parrainé ak ñiñ marrainé bis bi di ñaan yàlla yàlla yàlla guddal seen fan di gërëm sama soppe yëpp ak sama xarit yëpp ak mboolem autorité yi nga xam ne ñoo rek ci dëkk bi yalla yàlla fay leen xaw ma lu ma leen le lebal waaye toujours bu jot ñoo ngi koy fay man kay tabaarakallaahu xëy na ni ma yàlla bindee la rek waaye yàlla fay leen yàlla bàyyi ñoog suñu bakkan ci barke Seydina Muhammad ndax nit ku ne dangay bëgg fa nga dëkk dara warta jiitu nga bëgg ña nga dëkkal wax dëgg yàlla fexe naa ba sopp waa njaareem waaye fexe naa ba bëgg njaareem comme ni ñu ko waxee léegi rek man buñ ma doon jox bi bi fi mu toll nii Europe ñëpp ma soxla wallahi wa sharafil Quran waaye damay am fi ay programme du ma ko mën a bàyyi. Dakar gii da ngay da ngay jékki-jékki ñu am programme wax na ko waaye doo ko mën a bàyyi ndax Jurbel ndax li ñu am lu ne Jurbel ñu ko gënal kon nag yàlla na yàlla may ñu lépp luñ fi liggéey muy yàlla kese ci barke Seydina Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ca barzaq tey jëflante ba tey ma a may aba jëflante ba tey mbokk kooku mooy Ababacar Sy ca barzaq tey jëflante ba tey mbokk kooku mooy Ababacar Sy yor cër ak ci dogal ak ci sañ-sañ ci diine te yënguwul kooku mooy Ababacar Sy ana soppey sëñ Babacar yi bu nu sàggan ci Babacar ana ñi bëgg sëñ Babacar Sy bu nu sàggan ci Babacar ahousu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, tabarakallahu di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan waaye di ko jiital suñu xalifa bi suñu baay sëriñ mouhamadul habib kanji di xalifa maam cerno kanji di ci teg rakkam sëriñ papa cerno kanji baay daara di ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal seen fan suñu baay sëriñ mamadou kanji ak mbooleem njabootu maam cerno kanji yépp tabarakallahu di am mbégte bu baax ci bis bi bis bii dañ ciy ñaanal suñu maam bi jur suñu woy wu jigéen di sëriñ Pape muy soxna Awa Sarr muy jigéen ju baax doonoon jigéen ju lewet lii bi ñu ko dénkeeg léegi mat na 9 ans ci ren tabaarakallah ñu di ko taxaw yàlla di ñu dimbale waa njaareem xaw ma lan laa leen lebal waaye lépp lu ma xew xewle ñoo ci mën di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan di nuyu di ziyaara bu baax tabaarakallahu monsieur le maire Malick Fall di ko sant di ko gërëm di nuyu di ziyaara di gërëm ministre Dame Diop di nuyu tey ziar bu baax tabaarakallaahu ku ci mel ni euh, euh, Omar Samb directeur Sonacos di ko ziara bu baax moom it délégation am ñëw na euh, Pape Abdou Falit Waaj ñëw na tabaarakallaahu di ñaan yàlla yàlla na yàlla faj seeni aajo di gërëm étudiants yi ñoom it tabaarakallaahu samay soppe lañ samay xarit lañ ah, di gërëm Modou Fall Dia di gërëm waa Kabi di gërëm tabaarakallaahu Taala Kan di gërëm it tabaarakallaahu mboolem ñi jàpp ci bis bi samay soppe samay xarit sama rakk sëriñ Habib Kandji ak waa groupe sopp na bi yëpp di leen ñaanal bu baax yàlla na yàlla guddal seen fan di ziar di ñaanal ceekura seen tabaarakallaahu muy ma nga xam ne mooy président group soppee sëriñ As Kandji ak moo soxna day Kumba sàll di gërëm tabaarakallaahu tey ziara bu baax euh, du Saw di ko ñaanal bu baax sama mag la sama xarit la di ziar tey ñaanal bu baax Pape Ndiaye promoteur sama mag la sama xarit la sama lépp la di gërëm samay goro di gërëm sama yaay jii ci kër gi ak ay samay tànta ak samay maam samay bàjjen ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar samay mag di ko tàmbalee ci sëriñ alaaj Seck kànj ak mbooleem ñi nga xam ne samay mag lañ di leen ñaanal bu baax yàlla yàlla guddal seen fon te yokk seen wér ci barke yeneen bi su ko defee feebar baa ngi ñëw tëj nit ñi di takki masque waaye am na bu ko gën a bon muy feebaru xol mooy na ñu yéenante jàmm bëggante jàppante tey jàppalante te yàlla tax bu ñu ko defee danañ am jàmmi àddina am jàmmi àllaaxira bu ñu ko deful nag lu ñu yootu duñ ko jot ci fitna rek la ñëm su ko defee nag tabaarakallaahu li may lancé ndaw ñi mooy nañ nangoo liggéey ku ci jàng ba pare wala jàngatoo demal nga liggéey ndax fii ñu toll ci dëkk bi ak fa ñu jëm dana metti ci ñun te kenn ku ci nekk boo amul soxna yaa ngi ko bëgg boo amul kër yaa ngi ko bëgg kon nag ñoo ngi lancé appel mboolem ñuy ndaw nañu liggéey di lancé président de la république Macky Sall mu gën a farluwaat ci liggéeyal ndaw ñi ñim ci mën a jàppale ci kémte kalaay kàttanam mu def ko tabarakallahu ñi am alal nañ dimbale nit ñi te yàlla tax ñi nga xam ne tabarakallahu daal nañ jël seeni alal di ko dépensé ci aj màkk aj màkk amul ren seen alal jooju am na fu mu xaj mooy dimbale nit ñi te yàlla tax kon nag yàlla yàlla faj aaju yëpp ci barke Seydunaa Muhammad loolu daal laa doon lancé appel di gërëm ñëpp ci bis bi bis bi sama ñaanu maam la biñ tabaski ba am ñeenti fan ci la génn àdduna moo jur sama baay muy sama maam bu jigéen sama baay ne li mu moom dafa diis mënta yanu ziar bi yanu gàmm gi di yanu yeneen i programme mu jël bis bi jox ma ko ne ma dee ko doxal nga xam ne ndigalu kilifa rek am solo bi ma koy doxal ba léegi nag mosuma ci am benn jafe-jafe lépp day oyof kon nag yàlla na yàlla fay ko di lii daan nañ ci xalaat ay soirée ba ba spécial tabaski waaye ba yi nag spécial tabaski la ci Seydina Muhammad yàlla fexe na ba tàggatal ma ndaw ñi teg ma ci seeni loxo jël jël ma euh, sama jël seeni xol def leen ci euh, def ci sëriñ askan yi loolu loolu moom ndaw ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy euh, manifester fii ci Jurbel di la ñaana yàlla di leen wax rek fi ñu gën a samp seen tànk nañ ko nañ ko samp daayira yéeg tabaarakallaahu fu ne la kilifa yi bàyyi ko Canaba Thiès tabaarakallaahu Andulaay fu ne fu ne la kilifa bàyyi ko ñëw fii ci bis bi kon nag yàlla na yàlla faj aajo yëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe dig daje rek ba déwén nag jàmm incha allah na ci ñëpp teew saay suñ jullee rek ba am 4 jours fii lay amee ci xadara kër maam Thierno Kandji ak seen xarit seen soppe Serigne Ass Kandji wasalaamaaleykum wa rahmatullah